gaay dañ waxone ki munta liggey banjun ta nga wax gi bari won na waye mom du len de tontu man lima gis ni dafa melni ñi dañ ekati baro bu ko foli mané man duma ci boka man maa ngi tudda Fatou Cissé Mané maa ngi juddoo namba seven Lesuwaaf si kër Almaami Gassama bi ma nekkee xaleel baa ñun kontaanoon nañ torop because dañ nekkoon si bànneex boo xam ne képp koo xam ne Banjul yan nga dañ firi ñuy doxal doxal bi xam nga suñ kilifa yi nekk si loolu ñun mi xale sax dañ dee dem suku duñ dee ragal fu programme am tam dañ dee dem xam nga ñu ngi nekk si kontaan bu mari ba pare cosaan amoon na su commonwealth daan am nii dañ dee génna ñu sol suñu yëre ci commonwealth bi ñu kontaan be bugg a dee independence suy ñëw because man suma force independence bi ñun man ñu ba nekkee primary four si lañ stade di dem Bakaw waaye di ngaa gis ne suñu ne éleg la de def dee mel ni éleg la tabaski contour bata dafa fees ñu ut sandal si understand nga ambiance bi ñuy leetu because ñun Sadio school time boobu dañu wala ñu def six map dangaa dangaa def létta boobu boy spart lañ ko di ooyee so dañoo dem si si léttakat yi di fa rang nga leetu ut sandals ñu defal la boo ñu solal la uniforme nga def kawasanga yëf yi neex ba bugg a dee ñu nekk si loolu ñu dem a dem a dem ba Banjul kenn mënu ko understand Banjul dafa dem a dem dem ba ñu mel ni dañ ñu dugal si néeg tëj ñu. amuñ freedom of movement we don't have liberty understand nga dang dee ragal sax nga génna ñu téye la ñun baa ñun fii amuñ tali bu ma dee bu ma juróo gis ma fi tali bu baax ñaari tali rek laa fi xam tali bu baax mooy tali indépendance eh, aaj bi ba state house ak na pare man ñaari tali rek laa fi gis su taw bi ñëwee ñun Tabakoro lañ dëkka dangaa gis ne taxi sax duñ ko dee am pour ñu génna man benn bés maa ngi àndaa suma xale yi taami événement guddi taw dafa bëree bëree bëri ba mënuñoo gis man suma ñaari daala yëpp si taw bi la des tànki neen laa dox depuis fii ba Tabakoroot amuñ moto dangaa inu sa bagage taxi driver duñ la nangoo ëpp yow yaa inu sa bagage nga dox amoo si biir ndox bi ngay xuus ndox bi dafaa ñëw ba sa fii bi yaa jaam mi ñëwee benn koñ sa liggéeyu ko fi lu dul sonal nit ñi nekk nañ Banjul fii de soo gën a sax sa yaay dafa de wane bul dem Banjul óorut Banjul nekk na state of emergency loolu yëpp pour ragal dañ dee gis loo xam ne daf la dee naxari mun loo koo wax xam nga loolu dafa métti ñun dañ dëkka si métti boo xam ne dafa mel ni boo ñu takkee onasaan nga dafa me ni nga takka nit Banjul ñun for the past 22 years loolu la Gambia in general sa past 22 years loolu lañ nekkee woon léegi 2016 bi bi élection bi commencé ñu génna ñu wax nit ñi nañ leen génna because dañ nekk si difficulté bu rëy dañ nekkoon si position boo xam ne yow loo jaay président bi jaay ko first day bi bi ñoo demaa ak bi ñun juróom la woon baa ñu ne duñ di nangoo génna koo wax mu ne eh ñame ñu ma dama amee njaboot waaye ñun five ñoo àndaa président bi waaye bi ñoo àndaa président bi di wóor dëkk yi Adama Barrow def dee xool Banjul su suñu roomee mu ne xe dëgga dëgga Banjul dafa yaaxu mu ne man su ma fosting su ma yàlla mayee place bii Banjul laa ko njëkkee Adama Barrow lii la wax bi mu ko wax kenn siri la taxaw because kenn siri dañ fa eega ñu fekk fa pax bu mag bépp yaaxu foofoo ngi doy waar ba bugg dee waaye Adama dafa nekk waa Banjul fi mu génn Banjul na ni xam nañ ko ñu fekk fa yeneen booy ñu ko xam afdaay boori afdaay noonu mu toog di xam ñu taxaw muy nuyantee ñoom ma ne leen waajaa ngoog de xam man moom politicien la wax rek lay def ma ne leen sànni leen ko karta ndax ñu noppaleku si nguuru yaa jaame bi fii Gambia High ba campement school ñun si aj bi foofu lañ def suñ bés bi Gambia High ba campement school foofu lañ nekk diggante bi suñ xale sax ñeneenti xale yoo xam ne pour agent leen ñun ñoo leen jël teg leen dañ leen tiretin ñu ne leen ne ñii dañ leen a téye te soo képp xale bu fa toog dañ laa tiim maa pa pa ndaw ñoo duga bi Tobacco Road ñu dem lijanti waat xaleel foo xaleel because xaleel tri tri awas lañ dee def understand nga ñu dem lijanti waat eh, xale ñu ñoo won lañ suñ toogee su togu ñu war a liggéey yi understand nga biñ fa jógee élection bi time bi jot ñu ne time bi jot na man si county agent bi la boka léegi ñu duga ci bir ma itaw suma bena sister di ma yu ne ma fasise bul dugga fasi Cissé bu dugg ma ne ko nañ ko wéeru yàlla rek yàlla def ñu compté foofu nonu ñu wiin suñ gars yi ñu toog si aj bi de ñu amee téléphone nomba gars di kolante gars yi ba timis yooyu ku nekk dem sa kër ñu tal talee waaye stil na man suma yaay mu ne naa génna mu ne ma soo rek su kii wiine def laay ma ko kii du wiin suma doom bu góor bi mu ma bindal di ma bindal bañ egg a fooñi suma doom bu góor bi nee na yaa jàmme na ma ne ko su du win still maa ngi ici su ma yaay ne ma doo tiraay nga génn ma ne ko dew ma fen ma ne ko kii daf ñoo rey mbete mu génn waaye duñ dem fen ma génn dem toog si buntu bureau bi fekk fa ay nit tànga ñun ñëpp ñu ngi toog foofu noonu soo benn kër ma dugg fa may ñaan dox kooku noonu talem bi ma dégg rek mu ne there will be a change of government ma ne nit ñi nga bantalal funtina ma sila laa rek because fu ñu nekk si bureau bi amuñ bi ma génnee yuuxu rek ma ne ko annonce nañ win bi soo si leen stade di def suñ jubilation waa Kombo yi ñëw ñu dem ba bunti state xam sax nga politique rek ñu ne paaraay ne am may leen ñu ñu duga militaire yi fa yi ñu waa def leen danka rek def leen danka win ngeen soo dem leen toog seen lifin bi ñu ne may leen ñu rek ñu duga balaa Adama du duga may leen ñu duga bale state house bi understand ñun yaa jaamele ragalut yaa ngi maa saka keneen fii su yeboo hundred parti ñëw baro yàlla moo ko teg xam nga ñaata at ñu ngi xosul pour yaa jame jog mënut a jóg yaa jàmme mi fi nekk sa ragaluñ ko saka tey ñun gisuñu luñ ragal ñun campagne bi dañ koo campagne ba mu jeex tàkk duñ fa bàyyi dara baro bu mu tiit bu mu ragal moo xam ne nit yi démbaam woon ñun ñoo ñëw indi yéene yi boo kaa ñoom ñu dugg si kër yi xëcca leen ñu politique ak ñoom baa ñun fii bu mu fi ragal dara fii sa affaire baro sax dañ xëy na la sax dañ ko dee waxtaanee waaye waa Banjul moom ñëpp dañ pareel baro dinañ ko jooleen jukkal ba kontaan parce que lim ñu defal 50 years ma at butul 50 years de waaye soo seetee history bi tubaab bi tali yuñ fi bàyyi baro moo ñoo defaral ñu tali léegi ñun lan la ñu waxati amuñ dara lu ñu wax li UDP. ma ñoo toppa président baro man aw ma fa benn rëccute parce que di nga toppa président sax nga dégg mu toog si télé bi di saaga nit ñi Barrow dafa respect doomi Adama torop soo ma seet ma man man li ma gis nii dafa mel ni ñii dañ ekkati Barrow bugga ko fooli ma ne man duma si bokka man loolu laa wax képp koo xam ne ànd naa man bi ma laajee dama ne nañ leen dem MPP gis ngeen kii ñoo moom ñoo bokkoon pati ñuy dema moom di dema moo nekkoon suñu trésor moo amee suñu wàllum xaalis bi di dema moom di dema ba yàlla teg ko ñun ñoo ko teg suñ paree xëccu ñu ne bugguñ ko defu fi loo xam ne kenn mënut a def loo xam ne wax loo xam ne baro def na ko you cannot underline it understand nga mun loo ne baro lu bon li la fi def man ne man baro lay toppa tey baro lay toppa ba géej bi fer te ku képp ku toppa si man toppal baro te ki ma mun a indi dinaa ko indi jox ko baro baro suy wa su gars di wax seen wa Baro liggéey la leen dee tontu parce que national development plan bi ku ne amut yow da ngaa politique rek waaye loolu du wax boo xam ne am na. courant yi si leen bokka ñun fii dañ dee toog ay 15 days duñu am courant Baro bi mu ñëwee loolu amu fi yaa ma dégg pompe dañ daan tëj ñuy dem ba mayil tu man maa ko remember biñ nekkee xale ñun dañ de en ndox dañ dee dem ba si tànk bu mag bi fale ñuy en ndox xalaatal foofu noonu rek ngay en ndox mayil tu ba Tabacourou xam nga loolu métti na léegi ñun loolu yëpp amuñ ko ana saan nga suwee système bi mu ngee dox ana saan nga fii yoo amu fi président Barrow mu ne Gambia la gis yéen diggante boobu sax xam nga affaire yi Banjul la ñoo wax ñun ñaata yoon lañ dem si dex bi ak Barrow Farafenni dem nañ fa affaire courant dem nañ Soma dem nañ Basse kan moo fi toog ku ubbi university provinces fan la am ah baroo ngee liggéey understand Gambien yi dama bëgg a ñu understand ne baro mu ngee liggéey saay-saay waxut waaye yaaxan a xel ñun baa ñun fii ni ñu xam nañ ñu de suñu jógee nit ñu xam nañ ne ñun duñ de jóg caaxaan xam nañ ne ñii duñ nit koo xam ne déggu wuñ understand nga ñun dañ déggu lu nekk dañ ko teg si yoon def ko si yoon moo tax kuñ jógee nit ñi dañoo jóg te li ñu leen wax time campagne bi lu ñuy wax yëpp am na léegi suñ toogee fii ñooy national development bi doxul léegi tali foo ko bàyyi courant bi foo ko bàyyi ana ndox yi ana yur si ana ñun jigéen ñi ñuy dem fii development am na fi be dee because ñun jigéen ñi dañ toog def nii amuñ luñ liggéey loo liggéey ñu liggéey ko loo jaay ñu jaay ko léegi ñun dañ firi président boo xam ne mairie la fitna kooku lan nga koo fay lu tegaat ko